ñu topp ji gannaawam rek liggéeyal sëriñ bi ci fàttalante ak soññante ak sunuy mbokki jullit eh, mbokk yi liy xew mbas la balaa la ah, balaa nag yàgg na ci jamono bi doomu aadama nekkee ci kaw suuf ba léegi suñu borom tabaaraka wa taala mi ngi koy jëflante ak moom ci saa bu demee ba àgg foo xam ne ni rek sës na ca miir ba sun borom dana ko fàttali nag boppam yonent yu njëkk yépp walla yu bari ci ñoom seeni jamono suñu borom tabaraka wa taala wàcce woon na mbas ngir déjjërlek doomu aadama ak dëgër boppam ñàkk jëm ci yàlla ak ne ala mukk li yàlla tere ci la fas yéene di nuur nuur ci ay bakkaar yonent yàlla nuux alayhi salaam ca tuufaan ma yonent yàlla luut yonent yàlla saalix yonent yàlla yunus ak yonent yu baree bare yoo xam ne seeni jamono yu mel nii wala yu ko gën a metti amoon na waaye saabu bu dara rek gisoo banu Israil ci jamonoy Muusa saa bu suñ borom andee dara buñ fàttalikuwut mu indiwaat leneen buñ fàttalikuwut mu andiwaat leneen bu boobaa nag jullit ñi rek ci jariñoo ñoom dellu ci yàlla ndax ñoom seeni xol imaan manga ca waaye yéefar yi nga xam suñu borom dafa kast seeni xol ñoom loola dara ni dolli ak cànku te dolli leen ak rëy ñu gën a nuur ci ay bakkaar yàlla na ci yàlla musal moo tax suñu borom di wax ne fa arsalna alayhim tuufaana wal jarada wal xummala wa dafadia wa dama ayaati mufassalaat fastakbaru wa kaanu xawmam mujrimin suratul araaf aaya téeméer ak fanweer ak ñett doomu aadama itam saa àggee ci eh, àdduna jay ko ak seytaane ak xam-xami àdduna li ñuy wax nouvelle technologie ba dem ba jàpp na rek moom rek fi nekk keneen nekku fi bu boobaa sun borom dana yebal mbiram moom lay wax ci sóoratu yunus ay ñaar fukk ñeent naan xata isaa aqasati l ard suxrafaha wa aw naharan te sun borom yebal sax malayka yi soldaar yi muy yebal sax waxuma la nga mën a jàpp nga mën a jàpp say loxo ci ñoom waaye say bët bala caa tege da jëfandikoo li ñuy wax microscope waaw microscope ku waxoon tubaab yi ne leen vingt et unième siècle deux mille vingt wala deux mille dix neuf deux mille vingt suñu borom dana wàcce épidémie boo xam ne nii kenn amu ci pexe kenn mënu ci dara ñu weddi ko waaye day warande suñu borom tabaaraka tam taala moom rek a fi nekk moom rek kay buur moom rek kay borom man-man moom rek kay borom sañ-sañ. doomu aadama nekk lu ñàkk solo la te ku ñàkk xam-xam la te ku ñàkk man-man la kon nag ñun jullit ñi lañ ci jëriñoo mooy gën a wéetal yàlla gën koo kennal e, gën a topp ay ndigalam tey wattandiku itam ay tereem e, tey wattandiku ay tereem fii jamono toll tamit ci mooy yàlla nga xam ne ni àgg nañ ci di mooy yàlla mooy goo xam ne nii xëyru njëkk ya yàlla daan alak di yebal yu mel nii ca ñoom sax daawuñ ci àgg kon xam ne ne jamono ji ñu toll àgg nañ ci nit ñi yematuñ ci di mooy yàlla mooy goo xam ne jéggi na dayo waaye dañ cee bëgg yóbbaale ku mu ku mu doon ku ne fii jamono toll ci jaxasoo guerre yi ak rayante yi borom alal yi nga xam ne yàlla dénk na leen ay milliards yu jeex jëmewuñ ko ci luy jariñ doomu aadama yi jëmewuñ ko sax ci luy dundal suuf te ñooñu ay jullit a ngi ci de waaye ñoo ngi ko jëmee ci luy yàq suuf ak luy nit ñi moo tax saa bu ñu tollee foofu nag yàlla suñu borom tabaaraka taala day yebal ci soldaaram yi nga xam ne ni nee na moom rek moo xam nañ toll wa maa yaalamu junuuda rabbika illaa hu bu ko defee ñu ñëw lakkal adduna wit moo tax sëñ Moussa Ka waxoon na ne musiba yeeg balaa yi luñ bari bari bu leen ko sikk gaafi mooy yee ko ari taaxoon nag wala mbas bu ñëwee dafay taxawee ñaari taxawaay day nekk mbugal ci ab yéefar waaye dafay nekk nattu doon yërmande itam ci ab julit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam junjoon na ko ci ay jamonoom ci bi mu jógee xare Tabuk jamonoom mbas amut waaye nag junjoon na mbas ne bu fi jógee diir bu gàtt mbas dana ñëw maanaam balaa boo xam ne dana métti lool ba wax ci saxaaba yi ñu ci faatu lu bare bare ñu laaj ko ne ko waa boobaa jullit bu ci faatu moom euh, euh, euh, luy doon mbiram mu ne mbas moom bu ñëwee xàmmeewut jullit ak yéefar wut ku ñuul ak ku weex xàmmeewut ku am nationalité fii wala ku ko am fale te it coronavirus bi noonu lay doxe waaye mu ne kon bu boobaa moom ku ca faatu rek suñu borom da koy dekkal ci yéeneem kon ab jullit ci yéeneem la ko suñu borom tabaaraka wa taala di dekkal te it sëñ Tuubaa day wax ci tasawudu su bànne jullit bu faatu ci mbas suñu borom du ko laaj dara wa man yulazimu tabaraka wa man fi samani tauni mawtuhu alam kon buñ jàpp ne eh, dafa jomb déedéet jomboot suñu borom tabaraka wa taala moo koy andi mbiram lay doon it ca boole mu bokk ca kum ca boolewut tamit du ca bokk wa ala kulli xaal ñu ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala jëlee ko ci jamono ba nit ñi delluwaat ca la ñu nekkoon waaye yàlla nañ ci jariñoo bu boobaa ak delluwaat ci suñu borom tabaraka wa taala moom rek moo ko fi andi fa xaalul lima yurid